mbokk yi di rafetlu kon jot nañu ak seen yéen ci xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës Senelec ni na ay défaillance technique mu nangu responsabilité am ca la xew fële ca Cambérène di sàkku nag ci nga xamante ni ñoom ñoo ca jëlee ay yàqu-yàqu ñu jege si ay service am am na it coppite ci wàllu doxalinu askan wi lu ñu cay séntu fan la ñu bëgg ñuy jëfandikoo courant bi soppi ca kon anam ñuy jëfee dinañ ci nday leeral ca kanam tuuti yoon doxul tey jii. Euh, dogal bi nga xamante ni SYTJUST jël na ko di ñetti fan fas yéene banque loxoom syndicat boobee ëmb kon euh, wàllug euh, yoon liggéeykat yi yoon yi jàpp nañu ni ca ndar ña ngi koy jëfee 100 pour cent ca tribunal régional ba buntu ya ñoom ñoo ni ràpp tëju ña fa ñëwoon di wut si ay këyit njàqare la ñu delloo ca seen i kër chambre lu jëm ci charte yi ëmb marché public yi def nañu ko wolof ku ne xam lu ca nekk la bëgg waayit it leeraay gi ci anam yi nga xamante ni moom la ñuy joxe yooyee marché général Labou Thiam ak colonel bu Ndiaye ma ko remplacé ci direction relation publique bu armée ànd nañu seet si groupe Futur Média kilifa yi fi nekk ca waxtaan wa ñu séq digge nañu ni euh, collaboration ba ñu nekkee woon boobaak léegi dara euh, du ko dindi digg ca gi nañu ci am gan maître Ousmane Seye euh, la ñuy recevoir avocat dina dikk ci wàllu actualité bi fi mu toll ponk ñu yaatal ko dellu rafetlu ànd bi ak euh, télévision Futur Média dañ koy tàmbalee ak euh, xibaar euh, bu tiis bi docteur Hady Tandia mi nga xamante ni kon génn na àdduna moom sociologue la nag jàpp nañu ni démb fële ca Paris kon fa la daal di ñàkkee bakkanam foofee la faatu gannaaw wopp goo xamante ni rek woppoon na ko jàngoro jooje kon moom moo ko yóbbu ñu koy jàllay mbokkam xew na fële ca Cambérène ñu bari teg ci seen bët. yàqu-yàqu yu bari yoo xamante ni am na ci ay kër ci jumtukaay yu fa nekk Senelec daal nay euh, nangu ni ci yenn yi kon dafa am ay défaillance euh, technique ba tax na responsabilité am mënu koo dàq ci nga xamante ni ñoom daal ñoom ñoo ca yàqule bëgg nañu jege si ay service am ñu xool nees koy lijjantee waaye itam mi ngi séntu ci consommateur yi ñu soppi lu jëm ci doxalin naat ya Talla Modou léeg mi askanu Cambérène joxoñ ne moo waral lu bëri ci li seeni appareil di yàqu ndax coupure d'électricité këru liggéeykaay bi xamal nañ ne am na ci responsabilité fas ci yéene ki indi si saafara. effectivement courant bi yàq na fa ay appareil yu bëri kooku si responsabilité Senelec la en attendant ñu ñu gëstu li li waral loolu sunu équipe yi bu ñu demee foofu effectivement gis nañ ne si côté réseau bi am na ay fil yu fu yàqu yi tax. Euh, kër yu bëri per nañ seen i appareil foofu. Senelec yokk ci di ñaax ñi yàqule ñu gën a jege direction bi ngir rek ñu xool luñ leen mën a dàmpee. loolu su amee rek Senelec dafay dafay yabal nit donc nit kiy dem foofu agent bi dem foofu dina def rapport su boobaa ñoom lu suñu bindee boole ak rapport bi suñu agent bi demoon foofu ñu def ñun ay conclusion et en général assurance de leen di rembourser. Euh, Senelec a ngi ñaax askan wi mu soppi doxalin ci anam yu ñuy xëccee seeni courant ak yeneen i jëfin. loolu la ñuy wax nit ñi nañu gën a góorlu aussi di sori installation Senelec yi léeg-léeg da ngay gis ay poto yu nga xamante ne nit ñi pour am espace dañuy jël poto Senelec yi dugal ko seen biir kër cloture ko donc panne su amee guddi il faut nga yee nit ki. pour mun a dugg ci biir kër gi pour mun a dépanner les voisins wala koñ bi yëpp donc ça ay situation yi nga xamante ne aussi population bi ñoom ñoo koy teg Senelec Cambérène 1 fan yi wees jànkoonteloon nañu ak coupure d'électricité tax na ba ñenn ñi am seeni appareil yu yàqu moo waral rek askan wi di artu këru liggéeykaay bii di Senelec rawatina ci jamono ji nga xam ni jamonoy nawet la déetala ndox ak korang nag xam nañu ni euh, neexoowuñu mënuñu ànd Senelec loola tax mu ne jël na lépp lu di kon euh, disposition ngir moytu euh, électrocution maanaam masse courant yooyu waaye it yeneen xeeti jëf yoo xamante ni mën naa lor askan wi ci yenn koñi Ndakaaru kii di Omar Diallo chef service distribution Dakar ville moom moo ci nday leeral ci micro a déetala benn programme ba nga xamante ne li amoon daaw du am programme yooyu la ñuy la la ñuy tëral di def maintenance fii amoon problème daw ak nawet bi du am déwén. Ouest Foire dafay ay nawet yu bëri ñoom comme réseau bi souterrain la souvent dañuy inondé donc suñu inondé Senelec su ñëwee day couper courant bi pour kaaraange ñi fa dëkk déjà donc suñu couper courant bi léeg-léeg dinañ toog benn fan wala ñaari fan le temps ndox bi dem. na bu ñu xoolee loolu nañu xam ne lii il faut ñu trouver solution donc direction générale bi accompagne ñu donc ñu reprendre réseau boobu yëpp daf ko en aérien c'est-à-dire fii li nekk ci kaw fii li nekkee ci kaw donc ku nekk ñu defaral la sa branchement ba pare génne compteur yi ci biti donc sécuriser zone yooyu yëpp ba nga xamante ne ren même su fekkee ne zone boobu inondé na kenn du wax problème mu courant wàllu ko yoon ci euh, Sénégal euh, jàpp nañu ni lu bari doxu fi euh, sur juste grève bi nga xamante ni kon sumb nañu ko ñoom syndicat boobee ëmb liggéeykatu wàllu ko yoon yi moom la ñu topp fu demee ni ndar moom mënees nañoo wax ni 100 pour cent ña nga koy jëfee bunti tribunal régional ba la pëcc bureau ya dañu ni ràpp askan wa ñëwoon ngir dox si fa seen i yitte ak njàqare la ñu delloo seen i kër dañu fay fekk ji Ousseynou Diop Habib Seck syndicat des travailleurs bi yëngu jëm ci wàllu yoon amal ci diwaanuk Sénégal gi yëpp fii la ci ndaar ñëpp daan nañ koy respecté seen bureau yi dañu tëj ngir nga mën a am ay casier judiciaire aljuma lañ la jox rendez-vous lile ñoom syndicaliste yi nii fa ñu matoon duñ ko bàyyi ndax la ñu gis mooy wàllu indemnité de logement yi waaye tamit lii di assiette au fonds commun yi ñu mën ko élargir loole la ñuy réclamer tiitam bëgg nañu jàppale leen ci à l'indemnité ak à la participation à boo seetloo problème yooyu yëpp dañoo tànqam lu bañ koo régler. jafe-jafe boobe nag ñi ci gën a loru mooy askan wi Abdou Ndiaye ma nga jóge ca Leybar juróom-ñetti ci ay kilomètres la digganteem ak Ndar Géej Mamadou Adi Bay tam naka noonu xaritam ba ne ci Kédougou la doon wutal casier judiciaire ñoom mer la ñu def ba futtu maa ngi ñëw fii gisuma kenn quoi gars yi dañ grève te aussi tamit grève yi mel ni dañ ko war di teel a wax quoi pour mën ñi ñu mën a jël seen a ay précaution parce que jóge village bu sori plus de 7 ou 8 kilomètres waaye bi ma ñëwee dañ ma ne gars yi dañoo grève léegi aljuma rek laa mun jot euh, casier judiciaire bi te ki ko waroon yóbbu Kédougou tey la waroon dem. seeni ay kàddu ñu ngi cey firndeel ni ñi nga xamante ni ñu nekk ci wàllu yoon beneen yoon dañ ko war di fësal ndax ñëpp yëg ko. nga ñëw ba fii gisoo dara dafa metti quoi vraiment situation yi dafa dafa war a arrêté Sénégal quoi. parce que c'est décevant quoi vraiment. comme que ñoom ñu ngi laaj ay revendications gouvernement mi daf leen war a jox seen ay revendications ñoom tamit ñu mun ñu jàppale bu du loolu ñu ñëpp ñooy pénaliser quoi. syndicaliste yi tàmbaliwaat grève bi nga xamante ni ñetti ci ay fan lañ koy amal aljuma bi ñu jëm la war a jeex ñu ni nag lañ ci gën a naqarlu mooy dumooyu bi nga xamante ni garde des sceaux def na leen ko. waaye da ci gën a doy waar mooy que ki nga xam ne moo jiite justice dafa mel ni benn loxo la ko téye. parce que mënuñ comprendre ki nga xam ne nii bu liggéeyul justice du dox dem greffe pendant 72 heures nanguwoo ko woo sax nga déglu ko nga waxtaan ak moom. fii ci Ndar geej liggéey bi dafa tàgg tembe ñoom syndicaliste yi ñu ngay ñaawlu lu jëm ci wàllu doxalinu nguur gi ñi ci gën a loru di askan wi ci tribunal régional bu ndaar amul benn kayit boo xamante ni mën nañ ko jot tey jii. code des marchés publics def nañu ko wolof loole ARMP kon moo ko sumb autorité régulation marché public ngir ku nekk mën ci gis sa bopp waaye it transparence bi ñuy séntu mu leer ci anam yi ñuy joxante marché yi loole ñu mën koo jëfee ab lël lañu ci xëy sumb fii ci Ndakaaru Fatima Ba mooy dikk ci nettali gi code des marchés publics ñu daal di koy traduire ci kàllaamay kocc ARMP di kuréel gi saytu lépp lu soxal marché public yi fii ci Sénégal moom moo ko def lim ci jublu nag moo di gën a jege ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu woowu. Nous avons trié un certain nombre d'études qui ont été réalisées et qui nous paraît important de mettre à la disposition du public. D'abord, le code des marchés publics a été traduit en wolof, ce qui est une chose extrêmement importante. Parce qu'il faut se dire également que Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup d'intervenants du secteur informel dans les domaines des marchés publics. Il faut également que l'information accède à ces populations. yeneen ñaari téere ñu yokk ko ci mu soxal nag lépp loo xamante ne day gindi euh, soumissionnaire bi ba benn jafe-jafe euh, duñu ko am. benn bi mooy guide di soumissionnaire ku nekk xam na ni ñu bëri dañuy wax ni code bi dafa jafe pour mën a def sa marché correctement dans les délais et cetera yombul. guide bi giid bu simple boo xam ne bii képp koo xam ne kii liir nga code bi comprendre ko wala comprendre loo ko waaye bëgg nga lancer sa procédure de passation de marché giid bi dañ la wax A ba Z. à côté du giid bi am na beneen document checklist contrôler ndax commission des marché bi marché bi niñ ko passé jaar na lépp ci yoon respecté na lépp disposition code des marchés publics bi. coppite yi jawriñ bi ñu dénk wàllu bon gouvernance di ko rafetlu jàpp na ne euh, transparence dina gën a am ci li nga xamante ne moom moo di passation de marché yi. li nga xam ne jël nañu euh, code des marché jëlee ko ci langu nasaraan bi mu nekkoon indi ko ci wolof loolu defe naa ne mooy dëgg-dëgg firndeel ne ARMP li mu yéene mooy marché public ak commande publique jege képp koo xam ne yitteel na la ndax ni ngeen ko xamee ak trois centralisation dafa séddale kattan yi ba nga xam ne ku la nga moom yaa koy séddaleel waaye xëy na xam-xam yi tolloogul ñu mu war a toll ba nga xam ne bu ñu bàyyee code bi en français ku ci nekk dinga ko mën a jariñoo liggéey bi nag ARMP mi ngi ko amal ak njàppandalu Union européenne ndax koppar yu takku la ci kuréel googee uh, dugal wéy ci wàllug xibaar yi ak njàngale mu kawe mi système éducatif boo xamante ni ca daara yu kawe yi qualité dana ca am recteur dalay kan moom ma nga cay dalal xel yi la mu jàpp rek moom di ñu ngi jéem def seen kéem kattan ngir gone yi nga xamante ni ñu ngi leen di tàggat bu ñu génnee sax mën a tegu ci marché bi ba lii di taux de chômage bi mën a wàññiku ci réew mi xamal na ko nag délégation bu leen seet woon moom professeur Badalaye Kane ci micro Ousseynou Diop la waxee. pour système éducatif bi jëm kanam benn pour jàmm dellu si ci université yi suñu lycée yi ak suñu école yëpp mais ñaar aussi pour que réforme yi nga xam ne état bi su mën a ko ñu mun ko ñu mun réussir ñu mu gënee ci intérêt réew mi état bi nag actuellement dafa nekk ci ay euh, initiative yu am solo lu ñu bëgg mooy euh, suñu université yi ñu gën yaatal euh, lu ñuy tuddee accès maanaam xale réew mi ñu xam ne yàlla dimbali leen ñu am baccalauréat ñu mun continuer seen njàng moo tax ñu ngi ci liggéey bu baax a baax euh, mooy yokk université yi créer ISEP yi ak yooyu ñaareelu fan bi mooy qualité bi parce que euh, yokk étudiants yi baax na waaye li nga leen di jàngal aussi na nekk jàng euh, nu nekk lu am qualité parce que loolu moo leen di amal njëriñ ñetteel bi mooy xaalis bi ñuy dugal ci université aussi mu bañ a perte maanaam xale yi lu ñu bëgg mooy ku nekk sooy génn mu nga génn ak sa diplôme ndax loolu moo ñu tax a jóg euh, amul benn njëriñ nga def xaalis pendant ñetti at ñeenti at xale bi génn nga ne dax nga ko ndax dafa cartouché loolu yëpp état bi vraiment dafa bëgg échec ga moom xëy na pour mu ñàkk lu jafe la mais ñuy échoué nga xam ne ndaje la moo xamante ni bari ne kon ay organisation yu ko sumboon démb ngir euh, ñu bàyyi xel Mbayang Diop kookee doon daan dooleem ci Arabie Saoudite te ñu ni dafa mujj faat njaatigeem ba ñu teg ko loxo ñu cay sàkk noonu euh, njëgalal kilifa yu Arabie Saoudite bëgg nag état senegal jàpp ci bu baax ba lu ni mel ca cëppaandaw la euh, ñu mën koo jéggal mu ñibbisi fi ci ay mbokkam ca ndaje ma Pafara ñi ngi ma nga fa woon jàppale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 gërëm ko bu baax Diatala ne gërëm ko bu baax Pafara ñi ngi nañ leen ko waxee ci ndox ndorteelu xibaar yi am ñu gan maître Ousmane Seye avocat moom la ñuy dalal ci xibaaru digg bëccëg bi maître ñu am mbégte lool recevoir la. maa ngi lay fay Ngone. Ah, dañ koy tàmbale aussi dañ koy tàmbale rek ci élément boobee ñu daaneel ka Mbayang Diop ah, tey ji bari na ay organisation yuy mobilisé wu ngir ah, sàkku njëgal ca kon kilifa yi Arabie Saoudite yow noo ko gisee ndax am na ñuy tiit ni xëy na comme nekkagul lu ñu mën a lu ñu àtte ba mu féetee boor euh, yenn yëngu-yëngu yes ka yaakaaroo mu def pression ci kaw réew mu demee na Arabie Saoudite ba ñu ci doon bëgg xëy na ci cëppaandaw la leneen moo ci mucc am waaw effectivement dañ koy mettitlu cas bi nga xam ne moo dal suñu jigéen boobu di mbayang ca Arabie Saoudite effectivement ñu ngi jaare aussi waa Arabie Saoudite ndax nit nakk na ci bakkanam ca foog naa ko foog naa ne bi ko mbayang di def teyu ko Euh, parce que dafa am loo xam ne dañ koy tuddee rey nit mais rey boo xam ne c'est involontaire la je crois que noonu la war a demee ci Arabie Saoudite aussi dañ am seen loi parce que ku rey ñu rey la mais dañuy jégglu euh, di am solidarité ak mbayang nga xam ne ci suñu askan la bokk euh, ndax yàlla def ci jàmm effectivement nit ñaa ngi manifesté ñu ngi montrer seen solidarité ak mbayang man bokk naa ci ñooñu effectivement il faut que aussi ñu manifester wane neen ñu ngi jéggalu ki nga xam ne moom lañ faat bakkanam mais ñu ngi jéggalu pour que mbayang bu ñu faat bakkanam parce que déjà am na koo xam ne gënu na bu ñu ci tegee mbayang muy ñaar je crois que ñu ngi jéggalu Arabie Saoudite pour ñu mun a jéggal mbayang joob mais souvent lu demee ni grâce bi ngay laaj dafay fekk xëy na atte bi féetee boor carrément te te xëy na àggagul foofu non mbayang ko moo tax je crois que maa ngi rafetlu organisation yi ni ñu jógee ba nga xam ne ñu ngi koy utal ay avocat jéego yi nga xam ne aussi gouvernement Sénégal mu ngi koy def ñu ngi koy rafetlu parce que dégg naa ne ambassade ba nga xam ne moo nekk Riyad dina dem tase ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk Arabie Saoudite pour yóbbu leen kaddu président de la République kaddu askanu Sénégal pour jéggal bi je crois que bu ñu doxee ay jéego yooyu yàlla mun na ci def jàmm incha allah. yàlla mën na ci def jàmm yeneen jéego syndicat bemb liggéeykatu yoon ñu ngi ko doon séentu mu war a mën a tukkee kon seen njaatige euh, nee na njëkk nañu teg benn plan d'action ñetti fan euh, kenn faalewu leen ba tax dob dàbbali nañ ko ñu ngi ci ñaareelu plan bi euh, tudd ñu leen taasuñu leen ba tax na coow li tàmbaliwaat na ci wàllu yoon noo gisee yëngu-yëngal ci ci boobe secteur. waaw ngoone syndicat boobu mooy li ñuy wax SYTJUST mooy syndicat nga xam ne dafa ëmb greffier yi. ëmb tout le personnel de la justice ñoom mun naa wax ne ñoom ñooy poumon justice euh, bu fekkee ne gën nañ seen loxo ci justice justice du dox ca damay wax fii publiquement ne syndicat boobu ak seen président ak ñi nga xam ne ñoom la ëmb saa yu ñu amee problème ak justice man ñëw nañ seet si ma même seen grève bi avant ñu koy def ñëw nañ seet si ma wax ma ko ma wax ko ay kilifa ne leen ah syndicat greffier yi ñu ngi waaj dem grève il faut au moins ñu recevoir leen ministre de la justice recevoir leen wala président de recevoir leen ñu waxtaan vraiment ñoom ñu ngi lay déglu dox naa ci ay jéego mais li ma li may lu mooy ñoom dañ déposé préavis yi un mois. daal 27 juin lañ ne gis naa bataaxal bi wan nañ ma ko man ma jox ci ay jéego ne ñii déposé nañ préavis pendant un mois nañ leen recevoir mais boobu ba kenn recevoiru leen. ministre de la justice recevoiru leen président de la république recevoiru leen ñoom ay revendication yoo xam ne pour seen liggéey ñu améliorer ko je ne peux pas comprendre ñu nekk ci réew am ñoo xam ne dañu fiy yëngatu dem ba nga xam ne seen liggéey mu ngi sooxe ñu bugg ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiite kenn du leen recevoir kenn du leen may nopp. c'est pas normal lan moo ko waral xaw ma ko franchement xaw ma ko mais en tout cas maa ngi ñaan autorité ñu jóg ci loolu ku ñu fal ministre ñu fal la ci réew mi. pour nga liggéey ci réew mi la pour nga déglu askan wi la bu askan wi amee problème nañ jëm am na démb ku ma ñëw seet si euh, sama kër ñuy waxtaan mu ne ma yow da nga ubbi sa kër euh, ku nekk bu la bëggee gis-gis la ma ne parce que damay def politique maa yëkkati sama loxo kenn forcé wu ma ne damay def politique politique mooy lan mooy dimbale askan wi. Mhm. accompagner askan wi naka ngay defee politique ne doo déglu askan wi lu la askan wi wax doo ko def je crois que effectivement bu ñu la falee pour euh, ngay dimbale réew mi. di dimbale askan wi nekkal fi nekkal fi président de la république bu amee problème ci sa département la première chose nga oo leen déglu leen waxuñu sax nga faj seen aajo mais nga déglu leen xam lu ñuy mëbët c'est la moindre des choses mhm. maa ngi ñaan autorité effectivement notamment le ministre de la justice na recevoir Sytjust waxuma ne mu faj aajoom mais na ko déglu au moins lim ci mën mu def ko lim ci mënul mu wax leen carrément ne lii mu ñëw loolu yomb na Euh, mu leer euh, keneen koo xamante ni faloon nañ ko mujj ko folli Nafi Ngom Keïta euh, fële ca bopp kon of nag ñu jëlee ko fa coow li nag ci nii app bi jotul app bi jot na dégg nañ ci ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu droit administratif yaa ngi suivre boobu actualité noo gis waroon nañ ko fa mën a bàyyi mu jeexal wala président am na sañ-sañ ni mu ko doxalee mu jëfee ko noonu. waaw xam nga man mi wax ak yow spécialiste la droit administratif man droit mooy sama spécialité. kon waxtaan wi dañu dana gën a neex nga gindi ñu. mais dama bëggoon wax jooju ñu dakkal ko. Hmm. pour ñaari yëf. premier bi parce que xam nañ ne ñëpp xam nañ ne président de la république moom la constitution may muy fal di folli à tous les emplois civils et bu la président de la république nommé date bi nga xam ne moom mooy décret de nomination bi foofu la sa fonction di commencer ci ngay entrer en fonction maintenant am na fonction yoo xam ne boo ko jëlee comme OFNAC. am na liggéey yoo xam ne dafay doon enquête wala instruction yooyu balaa nga ko def il faut nga waat prêter serment waat woowu intérêt mooy commencer liggéey bi ci enquête wala instruction mais boo jëlee fonction commencer di fay sa sal di di di fay ko sa salaire commencer di organiser sa sa structure di recruter sa personnel effectivement date de départ mu date de nomination mooy décret de nomination bi. donc yow ñoom professeur Zouanke li ñu wax euh, pour yow teguwul ci wàllu droit. parce que ñoom dañ ne à partir de dama tukki woon mhm. dégguma sax li ñu wax. mais dama ne ñoom ñoo ci àddu parce que nee nañ bi mu defee prestation de serment ca la ñu waroon a tàmbali jàpp ni liggéey bi door na. non non non liggéey enquête bi door na liggéey instruction bi door na ca bam mu prêter mais fonction bi en tant que président de l'OFNAC nga xam ne du enquête rek. du institution rek dafa am personnel bu ñuy recruter di nga ut foo nekk ci immeuble da ngay fayu sa salaire mais bañ la nommé ngay commencé am na euh, ay fonction yoo xam ne par exemple am na ay alkaati yoo xam ne dañ leen di nommé ñu dem ba mu yàgg ñu war def liggéey boo xam ne ay enquête la yoo xam ne toujours police judiciaire moo ko war a def dañuy prêter serment war a def enquête boobu est-ce que dañ naan bañ prêter serment lañ nekk alkaati non non. bañ <laughs> bañ leen bañ réussir seen concours wala ñu nommer leen ci li ñu doon alkaati. kon yow taxawul taxawul maître serment dafay tax nga mun a accomplir certains actes d'enquête ou d'instruction loolu la ci sa biir liggéey loolu lay tax mais du boo prêter serment. kon yow ba décret ba rotee rek euh, la la liggéey mais mais li may ñaan euh, euh, madame Nafissa Ngom Keïta suma xarit la suma jigéen la am nañ vraiment ay relations yoo xam ne mun naa ko ñaan publiquement ne ko mu wàccee yi fii daane affaire bi ci suuf bu mu topp ñi nga xam ne euh, dañ koy song soññ pour muy attaquer état bi c'est un grand fonctionnaire gis nga fi grand fonctionnaire de l'état comme fi ak parcours bi mu def dara waru ko boole tey ak état ci ay fonction yu rëy la jóge inspection générale la jóge doon ko jiite dal ci nag même bu retraité mun na continuer d'occuper de grandes fonctions au service de l'état un grand fonctionnaire doit être au service de l'État du traiter l'État en justice mais, mais si elles se sont lésées tam maître bu jàppee ne xëy na dañu ko léser un fonctionnaire un être à la disposition de l'État dañ koy affecté di ko nommé di ko dindi ci nomination di ko yóbbu feneen dafa war a nekk c'est comme un militaire dafa nekk à la disposition mais xëy na anam bi moo ko neexul parce que ñenn ñi nee nañ yenn dossier yu mu laal parce que ci bataaxal bu mu génnee mi ah, ngi waaw euh, xam nga euh, Nafi euh, hmm? Ngoné liggéeyu OFNAC gis nga bu président bi defee rapport ba pare loxoom génn na ci daf koy jébbal procureur de la république procureur de la république mooy exploiter rapport am moom rapport rek la am def bu defee rapport bi ak lu mun nekk ci rapport bi moom bu ko xasee ba signé ba jébbal ko président euh, procureur de la république yoonam nekkut. xëy na ñenn yenn enquête yu mu bëggoon mënee nee nañ ci la nguur njiitu waaw ni mu mënee mënee enquête noonu la kenn mënee mënee enquête te du tey tey jóge na fi ah, keneen remplacé na ko gis nga waar bu ñu ko defee munoo bay waar wi yëpp da ngay bay lenn sa morom bay lenn yi moom fonctionnaire de l'État la nekkul fonctionnaire de nag bu ñu ko jëlee nag mun nañ ko yóbbu feneen elle est à la disposition de man en tout cas loolu dama ko koy ñaan dama koy ñaan publiquement mu teg yëf yi ci suuf nekk toujours à la disposition de l'État comme ni mos a nekkee à la disposition de l'État c'est une grande femme de valeur un grand fonctionnaire de l'État naw naa ko lool dama koy ñaan mu teg yëf ci suuf. Euh, parce que amul solo. mais maître OFNAC boobu sax euh, keneen ku fa nekkoon euh, moo di ñaan dégg ko moom tam li mu ci wax nee xëy na coow lee fi nekk mais président li muy wax woote ay transparence lutte contre la corruption ba tax na du ñàkk loolu moo jural soxna si madame Keita situation bi yow yaakaar nga ni euh, carrément li taxoon ñu teg fi of nag euh, ñi ngi ci ba tey ji et puis lu tax bàyyi ah man daal euh, nit koo xam ne laa <clears throat> damay rafet jot njort man ñaawuma njort jusqu'à preuve du contraire est-ce que du lay jiital tam di la teqatal boo xam nga texte bu ñu la ko joxee ba mu garantir sa indépendance kenn mënu la teqatal la preuve coow li am entre diggante na Nafi Ngom Keïta ak président de la République cela veut dire que moom mu ngi doon def liggéeyam librement ca aussi bi ñoom ñooy xool di seet ndax ñu ngi lay teqatal wala teqatuñ la. mais librement par exemple madame Nafi président Cour suprême nee na bi mu ko waxee ci wàllu euh, siiwal patrimoine président nee na daf ne ko laisser le tranquille donc euh, yooyu tam est que du ci xeetu teqital. non man du ma dugg ci en tout cas euh, rapportu lettre bu président OFNAC di bind ak président de la république ak yooyu am na gis nga déclaration de patrimoine kooku c'est de la responsabilité de la du président de l'OFNAC président de la yoon mayu ko ci benn cër bu fekkee ne am na ñoo xam ne dañoo bañ a def seen déclaration de patrimoine président dégg naa léegi kuy wax ne président de la république mun daf ci daf ciy def ay rappel non non président de la xasee ba créé OFNAC yoonam nekkatu ci président OFNAC ci boppam mooy jël moom la yoon may ku deful sa déclaration de patrimoine moo sanctionné ko bind président de la république ne ko kii deful déclaration de patrimoine jëlal sanction yi nga xam ne c'est prévu par la loi présidentielle. mais ci noonu nee na ba mu ko bindee dañu ko laisser le tranquille donc ah, wu. parce que diggante président de la république la ak président de l'OFNAC mënuma ci xaw ma ndax loolu la ko président tontu wala déet du ma ci prononcé wu. mais njort nga ni ci xeex bi transparence lutte contre la corruption yooyu euh, jéego yi ñuy wax ñenn ñi jàpp nañ ni tuur lëndëm la ci gëtu askan wi njort nga ni. ci doxalin ma ne man dama rafet ndort rapport am na am na ñoo xam ne incriminé nañ leen jox nañ ko président euh, procureur de la république mi nga xam ne moom moo ko war a exploité maa ngi xaar. procureur de la république nan lay exploiter rapport bi pour mun ci wax parce li nekk ci rapport bi kenn xamu ko Sénégal nañu bàyyi di wax di prononcer wu ci loo xam ne xamuñu ko rapport am na présomption d'innocence am na cela veut diir ki nit ki dañ ko cité ci rapport rek moo def parce que nit ki il faut que may ko aussi mu defaan pour de la république nga xam ne moom am moo am pouvoir d'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre mais moom la ñuy xaar bu poursuivre dañu wax lu tax mu poursuivre bu poursuivre dañu wax lu su boobaa lañ mën a ñun prononcé bu ñu gisee li nga xam ne moo ne ci rapport yi mais aujourd'hui kenn mënu la wax ci rapport yi ku dul OFNAC ak procureur de la donc man mënuma prononcé sur le ci doxalinu waaye politique yi sànq wax nga ko da choisir def politique euh, nga fekk si géew bi sa yeneen naataango tàngee askan wi euh, mer nañu leen joxoñ leen baaraam ci yenn xeetu doxalin yi li ñuy wax mii ñu tudd la ci tudd ci euh, beneen notaire tudd na jëfam ya euh, lui et moi yooyu xeeti jëf yooyu euh, tey jii euh, quelque temps après coow loolu yow noo noo ko gisee. mbirum cent quatorze milliards na coow yoo xam ne man jeexal naa ci. ci li nga bëgg a wax ubbiwaat du ma ubbiwaat man tëj naa mais en général laa wax ci politique il faut que may regretter di ñaawlu yenn wax yoo xam ne xaste la parce que koo xas mu xas la même sa liir bi soog a juddu boo ko xasee mu xas la. mais ci ci say àndandoo démb tam bu ngeen bëggee delloo si la ngeen seqoon euh, ca xëy na ba ngeen koy seq kenn fekkeewu ko loolu est ce que tam dina dalal xel. ci doxalin yooyu bu ko ku ci ku nekk bëggee dugg. dama ne doxalin muy politique muy leneen day sell ci li nga xam ne moom laa seetlu léegi ci réew mi xool yi laabul kenn du seddeel sa morom lu rafet lu baax dama doon wax démb maa ngi doon waxtaan ak ni ma ne réew mi day gëmatuñ sax liggéey parce que boo liggéey ci sa ñàkk bopp. am sa oto am sa kën ñu ne da ko sàcc parce que gëmatuñu liggéey da ngay gis ku liggéey liggéey boppam man avocat la suma liggéey bopp laay liggéey benn politique mosuma may kër wala oto wala dara soo amee sa oto boobee sax ñu ne diw moo la ko may dégg naa ne am na ñu bind ci internet man dama jënd oto ñu ne moo may xaalis ma jënd oto man <laughs> mosuma dog moom sama ñàkk laa la la la laa yore. mais ci ki euh, euh, ngeen li ngeen koo a. looloo tax ma ne lool dañ koy ñaawlu di di di ñaan ñi nga xam ne ñoo ŋànk politique ci réew mi ñuy wax loo xam ne dina la jëmale réew mi kanam président de la République wax na leen ko mais coow loo xam ne ay xastante la yóbbul réew mi fenn nañ ko bàyyi. di wax ci li askan ci koom bi ak liy jëmale réew mi kanam. loolu la en tout cas askan wi di xaar ci ñi nga xam ne ñoo def politique mais ñiy def politique tey lan moo leen soxal ay post war sa moroom ki nga xam ne moo topp rëkk ci sa ginnaaw moo lay njëkk a rëkk moo lay njëkk a pour intérêt personnel am intérêt réew mi kenn seetatu ko kenn waxatu ko kenn taxul muy jóg ku ciy jóg sa bopp a tax ngay jóg boo amee la nga bëggoon ñi fiy nekk même des fois da ngay gis ñoo xam ne ci opposition bi la ñuy nekk. lu nekk ñu wax ko bés bu ñu leen joxee nguur dootoo leen xàmmee. waratuñu leen mën a gëm bu dee li nga junj yëpp mi ngi ci politiciens yi tey. mais réew nag politique a koy doxal. kenn mënul doxal réew mi sans politique. moo tax ma ne il faut ñu réhabiliter la politique. ca les hommes politiques ñoo war a njëkk ci seen bopp réhabilité pour réhabiliter la politique man en tout cas suma parti loolu lay xeex. man loolu lay xeex en tant que homme politique fii ci réew mi. maître tënk rek ndax ñu ngi may ñu ngi may dànkaafu côté bële ci élection au conseil euh, sa kàddu ci loolu jàpp nañ ko 4 septembre. waaw mënuma ci sori parce que waxtaan dafa am man ma bokk ci euh, revue code électoral bi euh, nga xam ne soumettre nañ ñu texte yi pour ñu xool ko pour d'accord ci buñ ciy waxtaan dañuy aaye pour nekk membre. Euh, di ci wax ci rajo yi wala ci télévision yi li ma ci mën a wax rek mooy euh, lu baax la au conseil des collectivités euh, territoriales cent cinquante membres la soixante dix yi président moo koy moo koy nome quatre vingt yi ne leen di fal ñi leen di fale aussi département bu nekk dañ lay jox siège dina am un ba trois sièges siège aussi critère bi critère démographique la ku ëpp mbooloo ci département yaay ëpp siège euh, effectivement loolu moo ci am li ci des nag dañ koy waxtaane mu aw ma droit daal di ci wax euh, nga xam ne moo ne ci biir euh, gërëm la mënoo ci sori ci ponk boobu maître Ousmane Seye la ñu doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi fàttale ni avocat la sub na ci langue politique bi maître ñu lay gërëm du ñakk yeneen i ndaje ñu teew jërëjëf jërëjëf wax ci lu jëm l'armée beeg groupe Futur Média seen collaboration dañu koy wéyal euh, kii di colonel Abdoul Ndiaye ak général Abou Thiam sol nañ seen dàll seet si kilifa yi Futur Média euh, ñu andi ci euh, ki moo njiitu DIRPA bu bees bi di kuréel gin dénk jëflante ci armée bi moom colonel Abdoul Ndiaye remplacé Abou Thiam Abou Thiam léegi nekk général moom général bi sax moom moo ñëw ngir rekk présenté ki rewutu ci DIRPA kilifay groupe Futur Média. ñun ñëpp Sénégal la ñuy liggéeyal mooy suñu réew donc c'est des Sénégalais face à des Sénégalais donc y a pas de raison que relation yi bañ a bañ a baax donc amul dara loo xam ne lu bees wala lu ñuy inventé donc c'est juste euh, continuer à travailler dans le sens euh, d'avoir euh, une meilleure euh, collaboration avec les euh, avec euh, de façon générale. njiitu groupe Futur Média moom rafet lu tukki nemmeeku bu waa DIRPA amal fii. nee na information bi ci wàllu armée lu am solo ba tax na rek moom it nee na seen jëflante ak taskatu xabaar yi lu jar a bàyyi xel la. suñu larme wax naa ko leadership bi mu am ak ñun suñu groupe Futurs Médias leadership bu ñu am war nañu mën ànd pour que ñu gën a dooleel ku ci nekk ci ñun ndaxte senegal rek moo ci am ndam diggante boobu dafa war a nekk diggante bu baax. pour les intérêts supérieurs de la nation. muy ci taskatu xabaar yi di ci militaires yi ku ci nekk xam sa wareef ndem sax nee nañ seen jëflante laaj nañ mu gën a am solo ngir rek intérêt yi Sénégal. suñu agenda yi bokkuñu yéen li ngeen bëgg mooy am information boo xam ne bi ñëpp day tax ba ñëpp di gën a sawar ci seen groupe seen normal un journaliste c'est la recherche du scoop euh, ñun tamit suñu liggéey dafa di liggéey boo xam ne bi euh, dafa am ay euh, réalité donc dafa am ay spécificité am qui font euh, du lépp la ñu war a mën a wax. diggante ñaar ñooñu jàmm rek moo moo ci mën am euh, dina am nag léeg-léeg mu am ay ñagas-ñagas. même bu amee réeroo bu ñu waxtaanee rek dañuy dañuy jubo général Abou Thiam kon jóge ci DIRPA colonel Abdoul Ndiaye daal di ñëw mu mel ni kon seen jëflante ak tasukatu xabaar yi bëgg nañ mu wéy di sax dàkk bitim réew kon euh, la ñuy daal di euh, yër ak xamante ni moom moo di Nafissatou Sylla Nafissatou Sylla teewagul euh, ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak géejawaay mi nga xamante dana am benn stade bu bees dana toll ci ñetti junni ci palaas benn milliard ak ñetti téeméeri million moo ca war a dugg jawrin ju jëkk ji Mohamed Boun Abdallah Dionne ne na ci leeral ci micro Salif Sow dinaa waa waxi naan bi ngeen bëgg dinaa ci def un milliard trois cent millions waxi président jooju li koy tontu mooy weddi gis bokku ci looloo tax ñu bi tey ànd ak euh, le ministre du budget bi nga xam ne moo yore xaalis bi ñu ànd pour commencer liggéey bi nga xam ne entreprise bi nga xam ne moom moo koy def ñoo ngi nuyu suñu frère Mbaye Faye pour tàmbalee liggéey bi nga xam ne moom la président sant gouvernement bi fii mooy stade bi ñu raser ko ba mu jeex tabax fi stade bu bees stade bu bees boobu daanaka boo demee Mbour stade ba fa nekk moom la ñuy fii moom la ñuy dupliquer stade bi incha allah dina am 3000 am pelouse synthétique boo xam ne dafa conforme ak CAF. am équipement yi ci war yëpp muy toilette yeeg li ci war yëpp salon loolu le président ne dina ko def fii ci Géejawaay ci Waxinaan loolu le président jagleel jeunesse Waxinaan premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne yéen ci la ñuy dal ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ca of nag Nafi Ngom Keïta mi ngi ci naf-naf gu ko raw jamono ji ngir xam ne ko jëlee ci of nag tegul ci yoon bi l'observateur ndaw si naru ta bàyyi yëf yi mu sedd ndax yéenekaay bi nee nañu dégg nañu démb ci rajo Futur Média di RFM ne Nafi Ngom Keïta dafa fas dem ci cour suprême kalaame ji fa dàq gi ñu ko dàq tuumay excès de pouvoir la nar toppe président Macky Sall mi bind décret bi ko jëlee ca bopp of nag l'observateur ci xalim ak Sophie Baro ne ñu moo ne day Nafi Ngom Keïta musuta bëgg yëf yi yegg si foofee ne ba mu yégée ne président Macky Sall da koy jële ci loolee ndax leetar ba mu ko ngir ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum ca la war a jeex xamal na président la république ca lettre ba mu ko bind ne kii di premier président bu cour suprême ba ma ko wooye ne ko def déclaration de patrimoine dafa bañ ba ma la ko yëgale la ma ca tegal moo dinaa ko bàyyi tuun tranquillement na ne président ca lettre ba ba ma bëgg a jëlee ci OFNAC ne woon nga naa ñëw nga def ma ministre ambassadeur commissaire UEMOA wala vice gouverneur bu banque centrale loolee maa ko bëggul woon li ma bëgg nag moo di nga bindaat taxawaayam te bu mu ñànki na dem ci dem gu rafet honorable député di Abdou Mbow ni ci biir journal bi moom li mu xamul moo di lu tax kilifa gu toll ne Nafi Ngom di siiwal leetar bu mu bindante ak président populaire nañu bu yaakaar jeexee yabel dugg Nafi Ngom dëkk na président de la république dane ak jugam ca bopp of kenn du ko ca dégg waaye loolee soxna si génn naa ci ba set wecc nee day dem kalaami ji yëf yi kanama cour suprême Keita mas naa def déclaration de patrimoine au fonctionnaire bu toll ne Nafi Ngom Keita nan la mën a siiwalee ab lettre bu mu bindante ak président waa ne Nafi Ngom Keita ak nekkam ci of dara ca baaxul affaire de famille la ko bëggoon a def professeur Souak mi wër di ko défendre waa ne waa populaire kookee mënuta wax lu ñu saf ndax conseil spécial bu Nafi Ngom Keita la woon te bu dee bëgg na Nafi Ngom Keita na ko ne xeex bi mu jël bu ci xamal ne Nafi Ngom Keïta ak njub lay woote waaye njub gi ci muuraay ga rek la ne ñaari salaire la amoon da doon fayee côté am na leneen lu mu doon jot loo xam ne solde la doon jugee te moom Nafi Ngom Keïta ay pexem bu joyoon Sénégal dana ko santale Ngom ba Keïta ndax waa këram rek mu di njabootam la doon gis bi muy jiite OFNAC ca la fexe ba borom këram ba woon di Sidi Ndour dugg inspection générale d'État ñaari doomam yu jigéen gorom bu góor bu jigéen ba ñu recruter leen ci mission permanente bu Sénégal ca jot nañu ay xibaar yu leen di xamal ne immeuble bi Ofnac nekkoon Nafi Ngom Keita moo ko moomoon ba noppi doon leen ko luyee ci gàttal daal yéenekaay bi nee nañu gaañ ñi dañu ko weer Walf Fadjri ne ko kon kay weerante la ne muy Nafi Ngom Keita di neexi tubaab Abdoul mbay premier ministre Sénégal ba woon sullil nañu nguurug Sénégal ay mbóot yu xeeñ Abdoul Mbaye nee na Tender SA KNR Énergie ak Cosmos Énergie di ay société pétrole ak gaz yu nguurug Sénégal fas yéene jëflante seenub liggéey sellul moralité douteuse sullikatu mbóot yi di Ousmane Sonko enquête dina kay xëy na di enquête ci ay inspecteur des impôts et des domaines gi ñu suspendar mu di Ousmane Sonko njiital Pastef ak ni muy doxaleeg li mu wax ni muy jëfe patriote la am manipulateur la laaj bil anki dina kay xëy ci xëtamu njëkk am ñu gis ne njiital parti Pastef mu di Ousmane Sonko nit la ko Pastefu amuk jàmbaar te it baaxoo na di yëgoo am ñu jàpp du ca dara Ousmane Sonko tojul fenn bës rek lay wut ak daraja ñu wutali libération fekki fakki yàlla may daraja mu di président de la république di Macky Sall yéen a kaay bi yu nekkoon ci réew mi xanal àll réew mi Sud Quotidien nañu waaye terewul am na ñu nekk ci réew mi gis ci aw doxalinam moom président Macky Sall lu desee sell gis nañu ne aw waaye mënoon na fee gën a rafet li gàkkal aw yorinam journal bi nañu ñett la bari na lu muy diggee te du ko def bi mu yegsee dafa daganal transhumance boole cekkit justice bi la ñu jël di ko fayanto di ci def ay règlement premier ministre am mu di Mahammed Boun Abdallah Dionne ci a Soleil journal bi nañu ma nga woon démb ca Géejawaay ngir lancement vacances citoyen fa xamle sax ne lii soppi réew mi ngi tege ci loxoy ndaw ñi bi xëy ñu fukki milliards yu ñuy baaxee ndaw yi ñett ya ci wàllu auto emploi la jëm enquête yéenekaay nañu waa Géejawaay gouvernement bi da a yàq démb ba ñu yàqu yaxeet istarum ndaje ma nag moo doon a woon démb ca Géejawaay ëpp na fàttali ko ak a mobilisation te it nit ñi dafa mel ne tàlluñu ko woon ne kenn ñëw fa woon picc nekkuloon ca ndajama direct info xëy ñun ci benn vigile bu ñu tëj fukki at ndax dafa violé benn dof populaire nañu ni mu ko defee sax moo ñaaw ca technopole ba ca Pikine la yëf yi xewe vigile bi daa ñëw fekk benn waay muy violé dof bi mu toog ba waa ji pare jël wàlla moom it gërëm ko bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen bu wéer yéen ñi ñu àndaloon benn waxtu ba léegi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñu yendu jàmm